li waralon jotay tay bi euh, panel bi moy d'abord indi acteurs yi nga xamni ñoo nekk ci semaine de fer ñi nekk ci walu nguur gi les cheminots actifs les cheminots retraités les syndicats ñu waxtaan sur la relance des chemins de fer. gis nañu c'est une question d'actualité mais aussi c'est une priorité nationale et une priorité pour la région de Thiès. rafa nañ ci parce que liñ ci bëggoon moy ñu indi autorités yi pour ñu jox ñu la bonne information fan la état bi tollu ci relance chemin de fer lan mooy obstacle yi mais aussi lan mooy perspective yi te je pense que ni ku déglu l' intervention de monsieur Mayacine Camara l' intervention aussi de monsieur Kibili Touré am nañ ci assez d' information dañuy euh, maanaam làbbali rek li madame de ministre wax ñu am confiance que ni restitution yi ñu jëlee ci xam-xamu tey bi mu dugg ci nopp yoo xam ni borom dina ko jëfee te am nañ ci njort bu rafet que ni le président de la république dégg na li ñu def tey te euh, restitution yi ñu ciy def après dinañ ko tënk ci mémorandum déposer ko bu boba li ñuy xaar moy mu jëfe ko parce que li waralon bis bi tay moy fatali le président de la République dafa ñëwoon lors des élections présidentielles muni dès mois d'avril, il dina def le tout pour que chemin de fer mën relancer wu. ñun liñ doon def tay moy relancer niko ah ñi ngi lay fatali promesse électorale bi nga defoon bien vrai que ni gis nañ effort yi ngay def ak taxaway bi nga ci am loolu kenn du ko mais dañuy fatali, que ni chemin de fer, sa relance, c'est une priorité pour Thiès et pour le Sénégal. Le poumon économique d'un État chez les chemins de fer. Bon, le schéma des, politiques euh, d'infrastructure des pays les plus développés, c'est à partir du chemin de fer. Donc, euh, objectif industrialisation au Sénégal n'avons pas aboutir sans pourtant les chemins de fer donc la relance c'est inévitable maintenant la question c'est quand le ministre Maya Camara minimum il est là et il est prêt à répondre à toutes les questions à toutes les questions d'ordre objectif tout comme d'ordre subjectif donc nous que nous nañ digression nous rek et eh, xam nañu fu ko de fer toll loolu moo tax mu réagiré noonu qu'à cela ne tienne ñun amuñu clivage politique boo xoolee comité de pilotage bi am na ñu nekk dans l'opposition am na ñu nekk dans le camp euh, de la majorité am na ñu nekk dans la société civile am na ñoom ñu xam ils sont apolitiques donc lii politique taxu ko jug alors président li ko taxu jug mooy déceler les problématiques de la ville de Thiès apporter des réponses politique bi sax mooy ay pàcc pàcc boo xam ne mi ngi commencé ci relance bi jëm ci réhabilitation bi di mujjee ci développement

remobiliser mais phase boobu euh ci lañ nek pour xol nan lañ koy financer rapidement fii ak euh, quelques petits mois nu ñu def ba mu ba mu dem waye du téré dañuy xol aussi am ay banque mondiale nga xamné ne ñu ngi ci ñu réfléchir ak ñom ak yenen partenaire ñu ngi réfléchir ak ñom pour xol nan lañ mëna réhabiliter nak maintenant complètement li nga xamné dafa màggetoon ak euh, dem ci benen troisième phase bo xamné euh dañuy construire chemin de fer boobu phase moo gën a gudd te mën nañ ko àpp ci fukki at ba fukki dem ci fukki at ak juróom euh, nu ñuy def ba euh, construire ay lignes yu bees comme yi jëm ay Kédougou comme yi jëm Matam yi jëm Ziguinchor yooyu yëpp ay liiñ yu bees la yu am njëriñ nag pour économie euh, pays bi. date yi moom saa yu ñu ko joxee nit ñi dañ ciy sukkandiku alors que mbir mi du mbiru date mbir mi mbiru mu daw daw ci. daw avec sécurité mais daw daw bu am njëriñ eh, tamit bu bañ a yàgg donc je pense que option yooyu euh, lañ ñu wax nañ ko sàmm bu mu yàgg loolu te bañ a daw na bu dawee na nekk daw bu am sécurité mais bu dawee aussi na nekk daw bu am njëriñ. premier trimestre euh, mois 2020 buñ ko sañoon sax ñu bañ <laughs> ñu bañ ci àgg mais comme je dis euh, ñun bëgg-bëgg lañu am yalla moy dogal amna ay yu bari paramètres yo xam ne euh, neexut maîtriser parce que dañ ko seex ak Mali parce que il faut ñu waxtaan ak mom tay ji buñ fi jégué jëlee jëlee train teg ko ci raay Mali utiliser wu ko lu ñu def wala ñoom d'accorduñ ci yenn tracé nu ñu def way bu dee Sénégal rek buñ sañon mu daw suba.